jël si waat nañ suñu émission jotaayu ndaanaan yi nag bi la yoon nag ñu daal di doxantu ba fi nga xam se ne moo di kër Alaaji Matar Samb euh, daal fekk ñi nga xam se ñoo di groupe groupe Bass Bari Bagage nag bu ngeen ko déggee ñu daal fekk si moom fii nag akub groupe am ñu daal fas yéene ànd ak suñu cameraman euh, daal se ne moo di suñu ndaanaan waaw mu mel xam se moo moo nekk nag suñu invité tey ji ci groupe nga xam se ne moo di Bari Bagage ñu daal di bàyyi daal di nuyoo daal ñuy dalal rek ñu daal di tàmbali suñu émission di leen nuyu di leen dalal di leen wax ni ñëw ngeen kër ëttu ndaanaan ndax Matar Samb fële la woon ci histoire historien la woon sama papa kon tey man naa ni ñëw ngeen ci ëttu ndaanaan waaw man ndaanaan foruma ko li ma jàng rek laay tari kon daal tey dana mel ne mbaxalum foofu te rek ñëwaat ki nii bas bari bagage lay doon. ah loolu du yomb dégg ngeen bas ni mu daal di présenté woon bas bëri bagage mu daal di ànd ak ñi nga xam seen nag ñoo di ay groupe am ñu daal di bàyyi bas mu daal di nuyoo ñu ñu daal di nuyoo ñu soog a tàmbali suñu émission. salaamaaleykum Sénégal ñuy jaar ñëpp euh, di leen jaar yéen ñi. di nuyu sama yaay. ñoom hmm. jaarul hmm. di baax. Hmm. liggéey di nuyu Matar Samb ëttam ngeen ñëw tey. jotaayu daanaan bi yéen a ngi fi doog a egg si nag. fii mooy ëtt bi. ndax at bi ngeen ñëw borom kër gi daanaka la Felichef la nga xam ne tey kon seet si ngeen doomam nga xam ne aar rek mooy nelaw ci yaramam polyvalent nag macha kon daal dellu naa leen ak jàmm xam ne tey dana mel ne mbaxalum foofu tamit ñoo ak waaw ñu nga xam se ne émission bi xam naa bu demee ba ci kanam tey dinañ dégg loo xam se ne xam nañ ne ndaanaan la ñuy dool ñu daal di bàyyi ki nga xam se ne moo di sëñ Fallou mu daal di présenté waaw salaamaaleykum bas nag ñu ñaan ñooy ànd guddee bëccëg baax lool ñooy ànd fu ne nag waaw yéen daal dañ leen jàmbale tey daal di ngeen dégg-dégg dëgg neexut man dama waaw acca ba tey ñu daal di dégg ki nga xam si ne moo di sëñ Fallou ñu daal di jox ki nga xam si ne moo di salaam tamit mu daal di nuyu fatuwaar kàlla allah waa 24 actu tey jii ngeen xam ni jataayu géew ndaanaan bi ngeen wootee te ngeen xam ni egsi ngeen fatuwaar kàlla macha allah kii ngeen ñëw këram seet si ko mooy bas bëri bagage ay bagage am fa tubaarikàlla macha allah mbaxalum pont la ku tëlut du ko fekkee waaye ku tëlut du ca lekk day daal di nuyoo rek ñu jàll ci liggéey bi. daal di xuusani ci nga xam te ne mooy suñu biir waxtaan bas lan moo waral maanaam bas bëri bagage ndax bas bëri bagage wala. li waral bas bëri bagage mooy jékki boo ma saamaloon fii léegi darga sama jaay ko jaay naa café Touba def naa promotion. ba fi may waxee yow maa ngi buti bu soxla may gas foofu laa liggéey kon xam nga ne yi ma def yi limal yëpp def naa ko en même temps maa ngi def aar moo tax bu ma boolee loolu lépp nag ma ni bas bari bagage maanaam lépp luy may xaalis ba mu des sàcc ak fenn maa ngi ci. waaw loolu kon bas dégg ngeen ko ni mu tontoo lépp luy may xaalis ba mu des sàcc ak fenn euh, moo ngi ci waaw ñu daal di bëgg a xam nag fan nga dooree ci aar bi. waaw loolu boo ma ci laajee dinaa ci sawar a wax ndax sama ñaari ñaar moom métti na wax dëgg yàlla sama yàlla dama doon fekk ci programme sax di ma loolu moom dama koy wax parce que xëy na bëgguloon ma def aar dëgg neexul bëgguloon ma def aar wala mu dégg ñu ni aar lii moo ci nekk mais nag ak i aaram waaye man ni may aare moom personnalité ak fulla suñu borom dama ko dénk ma judduwaale ko te lu ma bëggut a defit mbindeef mënu ma koo def loolu lu waay def da koo neex rek. waaw léegi ñu daal di bëgg xam na comme que maanaam wax nga jaar jaar yi wax nga tamit fan nga doore ñu daal di bëgg nga daal ñuy defal yi fi ndaanaan yi ndax émission bi comme que jotaayu ndaanaan la balaa sedd rek ñu daal di commencé fi ndaanaan xool na. xam nga yam tey de li ngeen ko déggee macha allah dégg ngeen Bass daal nay yëngal fii ba mu yëngu daat koy def rek li nga xam si ne moo di yëfi ñu daal di fas yéene ànd ak moom di ko laaj nag Bass lan nga xam si ne moom ngay jëfandikoo yan instrument de musique ngeen di faral di jëfandikoo ndax xam naa fii yëngu na daal euh, man musique bi may bañ taasu bu dox bu baax léeg-léeg nga dem ci programme léegi jékki-jékki kuy taasu buumookat yi wala dara ñëw fa jékki-jékki eh ana ñu ko bëgg. Hmm. ana ñu ko bëgg non non loolu man duy taasu pour man. da ngaa war a ñëw comme yaa ngi ci yow dégg nga ma ne su allé. Hmm. sa fi ma teg taasu. day mbaa am jënd am bëfër man du ma taasoo ko ni may taasoo nii ci la ma ku ne gis bëgg ma macha allah ba mardi mardi bu jot sax nirvana ak salaam ñoo fay nekk. ay ndey géey samay xeet lan waaye balaa ko sekk ñëpp xamee na ma moom dëgg neexul. day fàttu waaye amul li ma jaar Arma Ndiaye ñun ñëpp samay sama nit la ñu doon ñu baax ñu yàlla baax waaye nag li war a loolu lépp mooy fa may taasu nii moo moo raar taasu nii la ma def mooy taasu man kébetuko damay taasu waaw man samay taasu moo raar te damay tëdd di xalaat di xel yi macha allah te voix baa ngi talent baa ngi fi ok. waaw d' ba tey ñu daal di bëgg xam ndax am ngeen orchestre wala yow amoo orchestre. bu baax amee naa foto yi rek la Modou kon kat mu ngi fay joué ji bu sama xarit la. ñu bëri daanaka ñu bëri nga dëgg ba tey ñu daal di gis nag li nga nekk da nga ko def métier mooy art maanaam yéen ñi ci yëngu te gëm ko da koo def métier di ci liggéey bu baax am na ñag ñoo xam ne dañ ko yor di ko def comme ça lu ñuy fowee ñooñu lan nga leen di wax. nee naa la bu ma xëyee dama xëy te bu ma gisaatul leneen loo xam lu bokk da aar ak xëy na te du sàcc du fen ñu la kaay gaar nii ma def loolu loolu laa wax mais nag am na ñu koy def di di ci foofu mooy fobi boo ko déggee mooy dem fu loo da ngay ñàkk classe. c' est ñu fekk fekk ñu feeru ay trente mille cinquante mille nga ñëw nag da ngay feeru ay sept mille ak cinq mille da ngay wàññi prix ba di waaye di tamit na ko fi def ñu bàyyi loolu di imposer man ba ma demagul télé laa dala imposer ci prix ba léegi te foo mu wóorul doomu fi gis man mari bagage te bu ma ñëwee. samay parole nag dama koy denc fu ñor rek laa koy génne du ko génne mu fu ñor. wax nga dëgg ba tey ñi daal di bëgg a xam tamit bas euh, comme ni ko waxee aar bi dafa am ñoo xam si ne ci lañ yem moom kese euh, wala yow yaa ngi ko booleeg beneen métier maanaam di ci liggéey nii. bu métier maa ngi beneen boo xam ne man ko def euh, fii nii ci Touba waaye man man rek maa ko def ci bëggukat yi muy aar bi ma lay waaj wax sama papa moo doonoon ñaanal historien sëñ Mountakha Balla Sëñ Bàkki Maram sëñ Kokki Ndege si moo du am soxna Fall nag soxna Xarit Fatou moo du ma am Diop mu màgg baax mu jox ko euh, sëñ sëñ sëñ sëñ Bamba moom ko sëñ Bassirou soxna Xadi Jatu Mbàkke waaye soxna Mbàkke waaye nag moo jur Xaadi Omar Jaxate mu jur Maam Kumba Jaxate mu jur Alsan Jaxate mu jur soxna Binta Jaxate soxna Binta Jaxate màgg baax mu jox ko sëñ Bassirou moom ko sëñ Moussa Bassirou am ko sëñ Mountakha sunu xalifa bi am ko sëñ Isaaxa Mbàkke intellectuel bi ci Daaru Minam bàyyiwu euh, ki yor soxna Muslim moom soxna Awa Gadiaga am ko soxna Faati Kiné Mbàkke mu caat ma kon aar bi ma defoon léegi ak bi ma loon nii bokkul moo tax man la man sama aar polyvalent su ma fekkoon fii nga ni déedéet su ma tëggee wala li déedéet kon tey muy Bass xam ne comme que bi tamit li ñu waxoon sànq jotaayu ndaanaan ni la te comme que temps du bari bëgg ñu maanaam bi nga dugal rek ci fi ndaanaan ni mu yam fi ñu nga génn laat ñu feneen rek ñu daal di pour askan wi gën a xam rek kan mooy Bass yi dama ci sawar bu baax sax boo bëggee dégg-dégg aar nu ma mel aar la lu allah sol aar ma mel aar la fu ma la boo bëggee dégg-dégg te euh, mais yàlla def na ni xam naa ci ku ne boo bëggee dégg-dégg tuxuma ci naanuma ci sàcc ma ci fenuma ci danga may fay lu mat ma sol rafet ñëw bi ma demee di dem ba comme xam nga ni ci raam dangay ñaan yàlla jub taxaw fi ni nii du ma ni jug naa taxaw ba ni ñodd waaye raam bi ba naaw waaye nag bu ma bu ma jugee pour ñodd bi moom day doon jug taxaw direct day doon clip single ñi àdduna bépp xam waaye nag dama ko mu single waaye yàlla def na ni artiste boo ma mas gis ci télé maa ngi di yóbbu moom maa ngi leen ci télé ñu may invité te may na ma lu ne macha allah jamono ji Happy Gracias. ndaw gi waaw te bas xam naa ne moom duñ dem la ba xam ana soxna si am ah, sa jabaru mag la moom ci nga wax lu baax noonu moom mënu maa ñàkk wax si moom ndax mën naa ne nëmmatuma sama borom kër ndax moom lu mu gis mu rafet mu jënd jox ma ni ma faat solal dàll mu jënd bijou mu jënd lu mu gis mu rafet même tissu sax day jënd ne ma am faat solal lu ma bëgg suba ba ngoon même dépasse bo man mën naa ni moom la waaw. daanaka daal nu matuma sama borom kër ndax boobu. waaw ana lu muy wax ci bas yaay booy kaay wax ci bas. loo gis dina rek boo koy def kilifa la jàmbaar. dañ fi yàlla jegee ñëw fi alkool ñëw nu jóge xumu na waaye bi ñëwee fu nekk. suñuy waajur dañ fi suñuy waajur dañ fiy dij rek lu mën a xew ndax sëy moom ku ne xam na ko waaye lu ñu leen woon ak lu ñu def rek ñu ni toog rek ba lii fekk nu fi diggante sëy nag ba doom nekk nii di taasu jigéen ju ne mën na caa wax mettit ba ca ne waaye nag bu doom màggee macha allah bu awee ci yoonu seral ko saxool day sedd ndax loolu rek nga doon xaar. xarit bu baax nii nag galas nii ak xarit bi ak salaam ndax galas itam parce que ni ko yaayam maa ko wàcce woon fa mu doon sëy. magam maa ko génn bas di ànd ak bas bi nu àndee nag moom itam mu aw tànk bas rek ko dara jëw ñun ñu bokk naa daal xëy nga xëy boo xam te ne li nga naan boo ko waxee du jeex. kon ma tàmmee tënk kii boo ma laajee ci bas moom damay laaj. waaw loolu la loolu la loolu la loolu la loolu la ndanaan moom bu jógee fii moom fii lay daal di rek tëjee ndax bu bas bi moom vraiment neex na bas nag vraiment muy nit ku baax lu ma mës a woote fekk si na ma ma nawee ko nag ci ñetti jikko parce que am na fulla am na fayda am na personnalité bëgg na yaayam benn anecdote rek laa leen di nettali dañu bokk oto defe naa loolu yàggul di anniversaire mbaajoo Mbathio ñuy ñibbisi mu ne ma asu lu ma lu ma am mun naa mun ma dama ko jox sama yaay lu mu guddi guddi dinaa ko yee jox ko ko mu wax ko nag mu fekk fekk mu defa ne jàpp ma loolu fekk loolu fekk na tax na ma gën ko naw ndax nit amul lu nekk amul lu say parents ndax loo liggéey te joxoo ko sa yaay rek sànni nga ko rawatina yaay nga am ne moom moo sonn moom moo moom moo fi nekkoon ba tey li nga mën a nekk li nga mën a am tey yaay moo tax nga am ko kon bas vraiment man li ma lay njëkk a rek mooy sa ngërëmu waajur bi ak li mu sedda ci yow rek mm. bul mës ci àdduna lépp loo sumb rek yàlla na nga ko daan ci barke Mouhamed mu nekk ku baax nag nit ku am personnalité nag. ndax ku la jëlee ci moom teg la ci tegal loo amal laa la koy jël maa ngi góor waaye ci kaw man boo demee sa nguur di wóor jàmm doon jëmal bas yàlla sa jàmm yàgg yàlla nga mu ci cat ak làmmiñ ak balaa ak ni yàpp mbaam mu teel ci bisu tam xarit bas yàlla. xam naa wax li yàlla wax xool su ma delluwaat waaw ginnaaw bu mu sant yàlla waaw di sant sama yaay. moom it comme lu mu parce que yaram yi rek xiirtal ñu ci ci lu bon wala ñuy ba tey jii kon ñuy tux wala ñu naan wala ñuy wala ñuy def leneen wax dëgg yàlla sangu sax boo ko mësaan a bañ a def bu la bu boo sangul boo tëddee dama ko fàtte mu yàlla lay nga sangu ba set ci laa ko tàmbi ba civilisé xel lu neex moom. su habitude la waaye kii moo ci moom ci teel ñun xamuñu yéeneen ay tilim wala def wala def aar sant wala nga def wala nga ñàkk classe yooyu noonu ma am fulla ba mel ne de deret moom moo ci loolu bëgguñu fi kenn fi ne nii li nga ma gisee nu ma am sama bëgg fees na ma dellu ci loolu mu yar ñu nag ci lan jàng jub jaamu yàlla liggéey. di ko baax sama anniversaire moo fay njëkk di ko baax di liggéey ci banque bii nekk 28 di baax di nuyu nag sama géer ñi di ko commencé ñoom it liggéey nañ xam ku ci mel ne soxna Fatou Sidi maam Kana ah di nuyu moom itam Bousso Aïssa Bousso di nuyu Assou Diop bi di sant ñëpp waaye di nuyu Baye Talla Couture sama téere bu ñaaw bu ñu ñaaw ki ñaan ko bu ko ñaawal bii dama dama def lii ba pare man ma déedéet fay gi baax na des na beneen di ko baax Seydou Fatou Diagne naa waaw Baye Talla di ko baax sama yaay man sama baay moom ma liggéey sama papa bi nga xam ne sama baay waaye waaye